olúwa am kọ́ o. èmi olúwa alaykum Gambia asalaamaaleykum àdduna maa ngi len di nuyu di len dalalat fi ci jamono media and products ci sen programme takusanu Banjul comme niñ koy defé sa su nek rek sen dox soppé sen dom ndey ami ma teewaat fi di len indil yu baxa bax yi nga xamantene mo xew ci jamono bi surtout weeru décembre bi ñu joggé nak fans yi yépp happy new years yalla nañ ko féké at yu bëree bëree bari ci wér yaram ñu féké ko tetal ko waye ba nak nag duñ am fofu non takusanu banjul suñ ko déggé entertainment programme la motax tay ma fi nga xamantene ne banjul si fi nga xamantene moy fijaral pour xol li nga xamantene ne xew fi parce que tay mom fi day jax li ko gars di waxé lu olof ñay mëna lu yëngu lu ne li ko yëngal ko upp doole motax tay matéw fi nga xamantene ne mooy ah fas yéene li nga xamantene mo fi am ambiance bék rumbama bi waye duñ am fofu non tamit dañuy waxtaan ak ñi nga xamantene ne fi nekk di muy wa banjul muy wa kombo kon nak duñ def dara lu dugg fi nga xamantene ne ci ambiance bi ñu xool lan lañ leen amal fii nii topp leen ma ñu dem nee leen tey boo leen sonn du ma ci seen li leen di bëgg rek laay dox kon nag topp leen ma ñu dem ci biir ñu xool fa nekk kooka nag ñoom lu garaaw rek la ñoo gis nga bi bu foo bloc bi la triple six bi ñëwul ñu ngi téye gémmiñu gaay gaay sañ fit ngee dem xam nga rek bi mooy ambiance bi nag ah nee na torop na ngeen gën a góorgóorlu ngeen gën a ay jàmbaar yu ndaw ni ngeen di def rafet na torop ngeen gën see continuer rek gën farlu rek loolu rek laa leen xamal ah rek rek. trop sax yëf te moom ñëw naa fi kontaan yees la yu dul jeex ñu yëpp ñu fekkee waat ko kontaan si bég ci yees Banjul mu nekk benn def Gambia mu nekk benn ñu ñëpp ñu waat fii gisaat suñu morom yi gisaat suñu xarit yi gis suñu dëkkandoo rek ba pare ñaanal ñu ngi feebar ak ñi nga xam ne ñu yàlla defal leen jàmm sutura leen yokk ñu Center. there? Yeah, I got five. Yeah, yeah, I got about five years. Five years. Ah, you could you remember? Yeah, member lah. Yeah. Yeah, more than 55. Yeah, anniversary. Yeah, must. Because you have more joys. It was anniversary. Yeah, 2017. noo the ambiance bi tey ak New Year's bi nga xamante ne moom lañ féetee démb. waaw ah, macha allah nee nee na trop nee na bëri na waaw nee na bëri na allah. waaye eh, nga xamante ne mooy Ibu Mbaba kon Baye Cissé ñu lay wish merry Christmas and happy new year di eh, hopefully ne di nga enjoy ambiance bi tey macha allah. Eh, incha allah yee eh, bu baax bu baax bu baax. loolu am pour wax waa jamono bii di. waaw jamono bii di lay am bu wane da ngay follow Eco Baba because ñun ñoo ñu jar follow like comme ñun thank it pas ñun suñu société bi dañ organise and like bagage moom booy noppi. ok macha allah um, Baye Cissé um, ñu ngi laa jaajëfal bu baax si contribution bi nga def nee ngeen fóolu li nga xamante ne mooy Ecoumba ba t'inquiète pas français bi ñu dugg France. ndax ñun moom lu nice rek la ñuy lu rafet rek waaw. ok Baye Baye jërëjëf um, jërëjëf waay bu baax a lañ ko torop sax waaw bu baax sax sa favorite hotel ci man ak ma ba dama memba nga déedéet duma memba waaye am fan la waaw yàgg nga si team bi yàgg nga si team bi waaw depuis xale yàgg na di new years maa enjoy waaw enjoy naa bu baax sant enjoy ñooñu ñi nga tudd noo tudd man Fane Ndiaye waaw ok kooku ki nga xamante ne nga mu ne she's a fan of um, Ekum Baba waaye nekkut memba waaye sa sañ sa baax jërëjëf sista yow sa gis naa la sa bës naa na yow jërëjëf waaye waaye mu mu mu la boy kó tó ọ̀rọ̀ kó tó ìkìlẹ̀ boy. Thank you.

by force nga dem uti si day am jafe-jafe bu baax pour import bagage yi nga xam ne pompe yi ngeen di. waaw parce que soo amul sponsor problème la waaw soo amul sponsor problème la te yaa ngi gis société bi amul amul kenn ku ñoo sponsor ñooy ñun ñoo nekk di ñefeel suñ boppa soo dégg la métti waaye ñu ngi koo anniversary rek anniversary waru da yomba ñun every five years lañ ko dee play dafa war a diis dafa war a diis te li ma génnee depuis si suba ba time bi gisu gisuma Banjul ku ko fi génne ma ñi ka génne Banjul yo wa Banjul nga man wa Banjul la ma am li ma am am pour wax li nga xamantene ñoy wa jamono media because ñom ñom ñoo la nekk di jël fu mu nekk nii lan nga am pour wax télé bi ni nga xam mo moo njëkk mujjee juddu is online TV so xëy nga am lu ndaw loo am pour wax waa télé waaw parce que lii dafa baax trop parce que lii dafa tax am suñ comme suñ affaire di géna di dem si àdduna bi fu nekk understand nga because online TV nii daf ñu dee mun a jàppale comme si Facebook bee am YouTube bee yooyu noonu nit yi di ñu mun a seetaan fu nekk because soo xoolee play bii nii nit ñu ko gis ba fu nekk tey. ñu ya bii nag nit ñaa ngi ko sétane fu nekk si Aruna bi tay so dañ si kontaan torop lolu baxna comme yow am nga li nga wax pour télé bi rek légui ñu ngi bu baaxa baaxa baax té te hopefully né di ngeen enjoy seen programme bi parce que xam naa fii rek lay am waaw tey mom tey mom dañoo dañoo wor ni rek waye dañ dee jappat benen bés ñu doora ñu play égéré play égéré do so la jógee fi fa suñ jogé fi ni fim nekk dañoo wor suñ suñ paré dañoo ak suñ bagage ñun ñibbi ñun soxlu ñoo seetaan sax parce que ñun win nañ ba pare ngeen jël ba pare waaw waaw waaw waaw waaye do lan clip mo fu mu tege rek am seen bagage yi nice na inshallah then hopefully tamit um, impress ngeen ñi nga xamantene ñoo nekk fii nii um, te maa ngi laa wish tamit happy new years ñu fekk ko ay at yu bëree bëree bëri amen amen wish you the same amen jërëjëf kon ñu ñu joy ñu inshallah jërëjëf waay thank you leen yaaga xam xam because every year nyari on the dee mun melni hamu. so it's always colorful hamu. nga nit yoo gëj a gis gis so the family ni comme celebration boo xam ne come. comme it's worldwide la ko because ñëpp fi dee nekk xam nga façon ngi race boo xalaat mu fi so da ngaa bàyyee nit memory boo at the end of the day su gaay delluwaatee tamit they got something to explain so mu ngi besu ba besu nga ñoo doxantu dem fële na le naka la Independence Drive dem xooli continue um, Ekumbaba bi foofu la gars yi di play egere xam moom dara du yomba dara du yomba ko parce que yomba lul moom waaw kay fix 100 percent violence bi nga xamante mu ngi xewoon am ambiance bu baax bu ambiance bu bëree bëree bëri si ngoon si nit ñi bëri nañ fu nekk la nit ñi di jóge am ñëpp a ngi ñëw pour am seen bopp gis nañ culture yi fa indi si wàllum hontin wàllum zimba ak lu wàllu li nga xamante ne mooy aada ak cosaan ah, gannaaw bu ñu jógee foofu noonu nag ñu ngi fii fi xamante ne mooy aaj bi ah, Ekumbaaba ñooy xewle fii nag mu nekk lu nice a nice a nice ah, si na programme tàkkusaanu Banjul waaye duñ def dara nag lu dul tàggatoo ndax lu neex du doy te waxtu bee ñu ko mayut kon dañuy tàggatoo ba beneen yoon incha beneen épisode Takkusaanu Banjul fii si Jamano Media and Products comme niñ koy defee saa su nekk rek seen soppi ami ma teewaat fi indi leen ba yeneen feem yu bees ah yi nga xamante ne moo leen di bégal di dee di féexal seen xol fii ci Jamano Media and Products kon duñ def dara lu tàggatoo ba beneen samedi incha allah ak beneen épisode Takkusaanu Banjul. ká lọ ẹ má bẹ̀rù má fòyà ẹ.